Ndeye suis directrice des arts donc de ñëw euh, pour ubi euh, formation bi fonds de développement des cultures urbaines euh, direction des arts organisé pour acteurs cultures urbaines avec les di ci centres culturels régionaux donc commencé depuis deux semaines commencé dans ko région de Sejo et Kolda commencé nañ ko ci Tamba ak Kédougou Aujourd'hui, ñu lëkkaloo ak wa Matam euh, fi may waxee ak euh Kafrine ak Fatik tamit ñom door nañu sen euh, sen formation. donc euh, li tax ñu ñëw pour def session de formation yi ci ci gox-goxaat euh dafa am fond bu ñu bu président de la République teg depuis 2017 mu nek fonds bo xam dafa wara développer secteur culture urbaine te xam de plus en plus dafa am dolé Sénégal et tamit ñu gis que ci développement dëkk bi tamit daf ci am dolé donc président tek fond bobu pour jeunes yi. donc euh, mais li ñu moy euh, ça yu défé appel bi wa Dakar ñoy ëppale projet yi ñu yi ñu yi ñuy yi ñuy financé euh, bi ba xoolaat dañu gis né que euh, li tax. euh, acteur u cultures urbaines yi ci région yu bëri seen projet du jàll si bindu projet bi la si bindu projet bi manam dinen am ay idée yu am solo mais buñ koy bind euh, ñi ñi examiner projet après duñu xam lan lañ ci jublu donc mu nek lo xamné dañ ko laaj yag mbébé diñu ko laaj euh, ñu xalaat ne que nag dafa jot tamit ñu jox leen même chance yi euh, parce que euh, fonds bi du pour euh, Dakar Sénégal yëpp la donc moo tax ñu commencé formation bo pour ñom tamit ñu yéegal tuuti sen niveau ndax ñu mëna a ak wa Dakar ak yenen yëpp ndax euh, tamit euh, respecter territorialisation dafa am solo dëkk bu nekk gox goxaat bu nekk am chance am mom tamit pour que ay projet moom mëna a

Euh, Budul dara amna ay nit ñuy di len fay ay ñu Dakar di enregistrer i ay son wala ay dañ koy def si à dañ koy def sen gox tamit ay région yu bëri yo xamna amnañ maison des cultures urbaines ay maison lay ay kër yo euh, ndawu réew bi yëpp yi yi yëngu ci culture urbaine dañ fay dajaloo di xalaat si lan mooy développer si cultures urbaines seen gox euh, dañ fay am ay studio de d'enregistrement dañuy organiser seen i manifestation foofu donc day dundal culture si seen gox voilà day dundal culture si seen gox euh, donc loolu nekk na li nga xam ne fond bi def na ko ci wàllu formation tamit ay acteurs ñi ñi ci ñenn ñi taamoo am ay studio ñeneen ñi dañuy taamu ñoom liggéey ci formation maanaam di gën a tàggat ñu nekk ci secteur bi ndax ñu gën a xarañ seen liggéey bu dee infographie ñu gën leen ci tàggat ko ku nekk xam na ne ay graphisme ak infographie secteur la yoo xamante ne day andi koom bu bëri donc loolu si culture benn la bokk donc ñeneen tamit euh, bénéficier nañ ci fond bi pour mën a jàngi leneen ci beneen dëkk parce que mobilité bi tamit ci fond bi la bokk euh, benen patch euh, bi am solo tamit moy festival yi festival yi c'est vrai que day dundal réew mais festival yi am na xamne day andi day andi comme tam ci deuk parce que am nañu ay festival yu melni par exemple yu bu graffiti bi ni def euh, ay nit ñu bari dañuy joggé fu nek ci ci ci deuk yi ñëw ci période du festival bi ñoo fekkee ko Dakar bu ñu ñëwee dinañ am fu ñu dëkk bu ñu ñëwee fi lañuy ñuy bu ñu ñëwee dinañ jënd donc lool yëpp day day yok tamit comme bi nga xamantane ne euh, day dugg ci ci biir réew bi donc loolo tax dañuy bëgg festival yi nekk ay festival yu mag yoo xamantane day andi ay nit mu contribuer ci suñu tourisme tamit donc mën nañ ne fond bi si yooyu yëpp mu ngi ciy intervenir euh, donc sànq da nga doon laajte fond bi ci nu mu tolloon bi koy soog bi muy soog ñëw mu ngi woon 600 millions euh, bo ba léegi mu ngi 600 millions mais président wax na leen que ne dafay eh, yobou fond bi ba 1 milliard yakar nañu nek que déwén incha dina am si fond Covid bi bi Covid bi amé tamit amon nañu fond spécial u cultures urbaines ñu dolli ko ak 500 millions yi fa nekkon muy 700 millions. On va dire que ce fonds a permis avant tout la structuration du secteur. Parce que nous savons qu'au Sénégal, ça, ce n'est plus à prouver. Nous avons beaucoup de talents beaucoup de talents, mais un peu éparpillés quand même, euh, chacun de son côté. Donc, euh, quand les efforts sont éparpillés, on ne peut pas euh, voir l'impact. Donc, ce fonds a vraiment permis voilà, de créer des structures, des structures, on va dire des champions même, des structures qui aujourd'hui emploient des jeunes, des fonds travailler. Ce fonds aussi a permis de construire dans plusieurs régions je ne les ai pas tous en tête. Je sais que Tamba a ouvert sa maison des cultures urbaines, ça fait pas longtemps. À Kaulak, il y en a. Il y en a un peu partout. À Dakar, il y en a. Donc ces maisons des cultures urbaines, vraiment, drainent tous ces acteurs des cultures urbaines des localités et leur permettent d'avoir, on va dire, un métier en infographie, en graphisme, et aussi de les former chaque fois et de, de, de, renforcer leurs capacités. À côté de ça aussi, beaucoup de jeunes de plusieurs régions aussi ont pu... Euh, ouvrir des studios d'enregistrement. à Dakar, ça foisonne, dans les régions aussi. Je pense que toutes les régions, euh, à défaut d'en avoir euh, deux, en ont au minimum un. Donc, euh, qui permet aujourd'hui aux acteurs des localités de plus venir à Dakar pour pouvoir faire leurs enregistrements, qui aussi emploie des, emploie des jeunes. À côté de cela aussi, il y a l'accompagnement au festival qui est aussi important qui, en plus de faire vivre la localité pendant une période aussi, draine des touristes et draine aussi des, Sénégalais qui viennent euh, pendant une période dans une localité, puis qui peut-être est pour le reste de l'année oubliée, euh, où les gens logent pendant la période de, cette, de ce festival-là, euh, logent dans, dans les maisons d'hôtes ou dans des hôtels, qui font des achats, qui mangent là-bas et tout. Tout ça aussi contribue à faire, à faire vivre une localité. Donc ce fonds-là je pense que comme on l'appelle fonds structurant, c'est un fonds structurant qui, je pense que de plus en plus, et plus on va aller, plus va aider à la structuration de ce secteur-là. Et je pense que si tous les autres sous-secteurs font pareil, je pense qu'on va arriver à structurer notre, euh, notre secteur en général.